cher gentenalu enquête 221 da jàmm da jàmm ci li a fës ci ëtt yëglekaay ñu commencé ko direct news bi dellusiwaat ci kaddu Pathé Ndiaye yi yàq mel ne xeme nguurug Sénégal seen projet découpage administratif bu yees bii rawatina département bu Rufisque moom Pathé Ndiaye di xam ne ci biir yéenekaay bi de projet découpage administratif bu nii la nii mësuma koo gis ci àdduna seen rapport bi bëri faute lool lii li koy firndeel leen ko la décentralisation coopérative boo gis dañ ci war a boole askan bi ñu joxe ci seen xalaat ndax dina tax projet bi réussite bi gën yomb lool la libération yéeni kaay moom ñëw ci demande jiitu Pastef bii di Ousmane Sonko autorisation di écho ndaxte dafa jëlaat lépp jébbal ko juge deuxième cabinet bii lii di war ne Ousmane Sonko dana toog xaaraat donte rencontre bi ni mel mu ngi war a am le 26 mai ñu jëm en tout cas mu ngi xabal ne Ousmane Sonko mi bu moytuwul tànkam du tege ci duwaanu Lomé mu génn réew mi lii moo ko jommal critique yéen kaay di ko dëggal de procureur kay du mooy Ousmane Sonko ubbiwul sax dossier bi nga xamante ne lii mooy ñeel demande d'autorisation bii pour mu génn Sénégal dem assister rencontre bii di am ci diwaanu Lomé yéen kaay bi dañu procureur jébbal na lépp juge deuxième cabinet bii lii quotidien ubbi xët bu yaatu jagleel ko tàggasante xuloo bii nga xamante ne lii mu ngi am ci diggante cadre APR yi ak waa LD gannaaw cadre tasaare ko ci réseaux sociaux yi lu leen neex ngeen yàq professeur Bathily direct news moom ñëwaat ci deal bu bees bi nga xamante nii mu ngi ci diggante Macky Sall ak Idrissa Seck yérekaay bi dañu xamal ne gannaaw ba Macky Sall fexee la tout ba jël Idrissa Seck teg ko ci wetam jamono ji lenn dong la bëgg ñoom ñaar ñii te moo di boole seeni parti APR ak parti réew mi benn comme li ñuy wooyee seen bopp mburoog soow projet bi ni mel Macky Sall ak Idrissa Seck commencé nañ ko waxtaan ci suuf yéenekaay bi dañoo xamal ne dil la de ab dil boo xamante ne di cadre APR yii duñu a gëm waaye bés bu sottee rek ñëpp xam ne Macky Sall ak Idrissa Seck mii li ñuy woote moo di am benn parti politique boo xamante ne nii mi yekk lu mel xeme nguurug Sénégal gi te di xabal di li ñu leen doon xaar ci coowu Palestine bii moo di ngeen jël position bu leer ci moo xamante ne li ñu fi ëpp ay jullit lañu ñëpp xam nañ ne jullite Sénégal yi d'accordu ñu benn yoon bokk mbokk jullit ya nekk ca diwaanu Palestine Mame Makhtar di xamal nguurug Sénégal gii ne nag ajuma ji jullit yépp danañu génn def seen manifestation naqarlu lool jëf ju ñaaw ji ñuy def suñu bokk jullit ya ca Palestine ay sàkk ci nguurug Sénégal gii mu daal di recevoir ca na mu gën a gaawee ambassadeur Israël bii ngir mu mën a wax ci xët-xët gii am ci diwaanu Palestine yéene kaay bi di ñu ni Mame kay dafa mer futtu jàpp na nguurug Sénégal gii doon xaar ci moom defu ko te fi mu toll nii li mu gëm ak armée bi waa eaux et forêt ñëw taxaw temm ci sàcc gi nga xamante ne ni ñoo ngi koy def forêt yi di dagg seeni garab yéene kaay bi ni dafa fees bëri bi mu ngi woote renfort yéene kaay bi di ñu xamal ne bu ñu moytuwul nag musiba bi l'observateur moom ubbi xët bi yaatu ci coow Ousmane Sonko Adji Sarr tey laajte ne xanaa dossier bi ni mel dañ ko gas ndax ba jamono ji gisuñu benn yoon commission bii ñuy wax ne dañu koy taxawal ngir mu leeral coow Ousmane Sonko Adji Sarr mii en tout cas ak lu ci mënti xew yéenekaay bi mu ngi xamal ne ña dee ci xët-xët gii dong ñoo ñàkk seen bakkan ndax boo moytuwul coow lii du mujj fenn suñu laam moom ñëw ci combat guy gi ak rëg-rëg yéenekaay bi ñu xamal ne seen premier face to face jàpp nañu ko dimanche bi ñu jëm ñaari mbër yi war a jàkkaarloo kenn ku ci nekk mën a wax moroomam lañu war a def bis bi ñu jàkkaarloo ci digg làmb ji ki rasulilaay doole doxul jàmm rëg-rëg champion la guy gi champion la ah, ku daan baax na